feebar bu bees bi mool ya nekk ca caaroy sur mer laale tax ba ñu wax ni bu kenn jëfandikoo jën mu mel ni nag loolee yàkkal na lu bari jaaykatu jën ya nekk ca marché central bu Pikine ndax nag ñi ngi xam ne ni gisatuñ benn client bu ñëw foofu ca marché central bu Pikine ngir jënd jën fi jënd sax ñu ngi nii jënd nañ wante ñoom nee liggéeyuñu rek bi moom dafa metti nañ leen jàppale si liñ leen mën a jàppalee rek tam ndax ñun amuñu lu dul marché poisson bu ñu liggéeyulee ñun duñu am lu ñu toog te duñu am dara loolu rek am si li ñuy wax kon kon kon fi toll nii daal marché bi daal euh, jaxasoo na bi moom jaxasoo na nii gis nga maa nii yegg si mënumaa fexe ba wax ñu ne jënd nangam ak feebar yéen a ngi gis seen client ni ngeen leen daan gisee.

normalement sonn nañ ba fa ba fa sonn ya ndax ñun jigéenu Sénégal amuñ lu dul yabooy fii ñaata junne doomi aadama ñoo fi nekk fekk nga ñëpp wàcc ndax ban heure moo jot ban heure bi jot xam ne nii tey moo wax ne jën naa nga ma ci waroon naa xoolaat wax bi nga xam ne moom la je pense que mu ngi wax ne jën moo indi feebar jën wi waroon nañu wax ne ñi nga xam ne ñoo njëkk indi jën wi jaay jën ñi nga xam ne jënd nañ ak feebar nañ leen xool ba xam lan moo ba nga xam ne xaalis bi nga xam ne nii moom nga dencoo as moom ngay génne di fayee borom jëm borom di la yóbbu ay porte ba ay porte bi ci police yi ñu di la di di la sonal di la métti sonn jaaxle eh, jaaykatu jën yooyu nag jaaxle nañu lool jamono ji ba tax na nag ñuy sàkku ndimbal ci état bi kii di ministre de la pêche génn àddu ci lu ni mel ndax bi le feebar laale na ak jën yi waaw wala déet. ñu ngi ñaan ci yàlla. mareyeur wala nga doon koo xam ne yow responsabilité bi ci réew mi na nga ko teel a lijjanti sonn nag jaaxle nag te amul fu mu jëm kenn ku mu koy jooy ndax suñu ñaq rek jër yu rek ñuy def jën jën jën mën a jëndoo mënuñu koo versé amuñu dërëm buñu leen jox sonn nañ jaaxle nañ ñu ngi leen di laaj nag ñi nga xam ne tey ñoo toog fii te coono bii daanu ci suñu ko ñu leen di laaj yéen lan ngeen ci xam lan ngeen ci xam lu tax yéen yëgluwu leen nit ñi wan ñeneen ñi lii mu ngi ñëw ci suñu